dalee nag jàmm ci biir RTV Dakar di leen eh, jaajëfal ci topp bi ngeen ñuy topp gannaaw coowuk faatuk Iba eh, ki nga xam ne nag eh, moom mooy Dame Amar di doom ci Ahmed Amar nekkoon homme d'affaires bu mag fi nga xam ne moom mooy Sénégal génnoon àdduna ci bu yaagul dara moom nag ginnaaw bi ñu waxee ni dafa takk ci génnuk àdduna ki nga xam ni moom mooy xale bu jigéen bi di Iba Thiam Dame Amar amaat na yeneen jafe-jafe bi yoon nag ma xewe xewee fële nga xam ni moom mooy ca Dubaay foofale nag ñu ngi ko fay jiiñ wàllum uh, njuuj njàkk ma njuuj njaaj maanaam escroquerie loolu la ñuy jiiñ ki nga xam ne moom mooy xale bu góor a jamono yi ñuy wax ak yéen bu ñu sukkandikoo ci émission bi nga xam ni moom mooy Sene People di daw fële nga xam ni moom mooy ca uh, Seneweb ki nga xam ni moom mooy Dame mi ngi ci loxoy takk der yi ndax dañu koy bàyyi mu daal di ñibbisi fi nga xam ne moom mooy Sénégal ndax dañu koy téye ndéegum fële nga xam ni moom mooy ca uh, Dubaï loolu dinañ leen ko toppal ngir xool naka la Eh, Dame Amar di dom eh, ci Ahmed Amar di mujjé ak affaire escroquerie maanaam njuuj njaaj eh, bi nga xamné mom lañ ko jiiñ continue len nak di top d'information RTV Dakar ngir ben xibar bañ leen a raw di leen jox nak dig dajé benen yoon ci biir RTV Dakar. quatrième édition avec le géant du live Mohamed Seck Melo bu Serigne Moustapha salam alaikum. salam Seck Melo nag moo woote fii ci Grand Théâtre ci kàttanu le. 9. le neuf inshallah allahu rabbi man Doucouré maa ngi ci biir. le 9 décembre. kan mo xewle Seck Melo Seck Melo borom ñëmbal fa la koy defee grand théâtre le 9 décembre. Seck Melo sama xarit sama doomu ndey moo jàngal mo bla mo bla moo wa tey Seck Melo gracias théâtre entre cinq VIP maa ngi ko grand théâtre jël sa bic bindal date bi le 9 décembre, comme au Théâtre Grand Théâtre, nous avons 5 000 entre 10 000 et 10 000 francs. Quel est le nom de la place en place Je veux que je ne sois 5 000, VIP 10 ans pour l'entrée. Ça sera le vendredi 9 décembre au Grand Théâtre National d'Oudoundiaï Kumboros. Cette édition est dédiée à Mam Cher Tidjansi Al Maktoum à l'image du capitaine. C'est Kimelo, le Wach.